man leen baay barahama jërëjëfe baay war nañu bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala rabbana la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim ñu ngi ci alhamdulilah lil imam Busayri في إرشادات ربانية بالفتوحات الإلهية لسيد أبي العباس الشيخ أحمد تجاني نعم بوسيل من تقين على محمد صلى الله عليه وسلم من هو محيا كرم نعم كشمس بمن جنت نعم مدين باجي ليرال وكرم kanam مدين nag كرمك مدين باجي la ci kanam ga mu diwun على محمد صلى الله عليه وسلم نعم sa kanam gi yonent bi dafa mel ni jant ni jant di leerale noonu lay kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leerale ak usrat nañ maanaam feñan nañ mm-hmm. anu ci kanam googu laylatun gudd xarraa u gaa ji weex jaaji leer nañ kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. guddi gu lum lëndëm lëndëm kanam gi mën na koo leeral du sëy dafa yu ak ci bi ak jant ndax jant mooy li gën a leer ci liñ xam waaye bu dul loolu mhm. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay moo gën a leer jant xëy na ñëw gim ñëw ci insaaniyatu mhm. moo tax lu bëri ci leeram yàlla nëbbuñu ko mhm. buñ gisoon leeru ci bi ñu bëri gumba ndax attanuñ ko ni nga xamee ne leeru jant bii rek mënuñ koo xool leeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ëpp nañ ñu koy xool waaye nag yàlla feeñal na ko ci melo doomu aadama benn bis ndey Aysatu puso mos na koo réer dana ko wax si sarxa bi mu di ko seet gisut ko yonent bi ne tëll rek kanam nga leeral néeg ba waaw ba mu gis puso ba sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne dafa bëgg wax ne kanamu yonent gu leer ba mel ni jant ci la yàlla génnee guddi gu leer googu mooy guddi gu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi juddu maanaam maanaam wax ji mooy amal muhayya naka kanam woo moom al waju moo di kanam muhayya mooy waju ka shams dafa mel ni jant shabahu niru na ko bi shams jant fii xaayati di yaay ci doyab leeram wa fii xaayati kamaal ak ci doyab matam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da niru leeg jant boobu ngir leer gim leer ak mat gim mat wa tasbihu niru la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi shams jant min baabi tasbihi ñu ngi bokk ci buntam niru la leen en la lu gën a kawe bila dinaa ci lu gën a suufee mm-hmm. doone yonent bi mu ngi mel ne jant mm-hmm. yaa ngi niru leen lu kawe ci lu suufee ndax jant kay leeram lu suufee la ci kanam yonent yàlla wa <coughs> wax lu tax mu wax loolu woowu moom saayixun aji dagal la indal arab yi ci arab yi mm-hmm. arab yi dañuy niru leen lu kawe ci lu moom sallallahu alayhi wa sallam fi diyaay ci leeram diyaaw mooy leer gu ànd ak tàngoor kon nuuri ak leeram adwaaw moo gën a leer mm-hmm. wa anwaru moo gën a leerit wa akbaru moo gën a màgg mi ne si jant bi kas yi nañ ci lu bëri leer ak yonent bi moo gën a màgg leer ak jant mën a koo xam ne nii Muhammad ibn Abdullahi rek la xam laa wax mm-hmm. <coughs> kooku loolu mën na koo jaaxal waaye ku xam muhammadu rasulullahi da nga xam ne leeram moo gën a leer jant fe na diyaa cham si naka leer ak jant mm. fii raayati saati ci doyog yaatoom isa uddifat buñ ko laafee ilaa nuur yi ci leer ak yonent bi mm. wa diyaa yaag leer ak jalaalam mm. sallallahu alayhi wa sallam kaanat dafay nekk basqatin mel ni ab taflil rek fil baxri ci géejal muhit ba ji peek baxrul muhit bi nga xam ni moo war fépp boo demee tafli waxuma sax yonent bi mm-hmm. waaye yàlla may na ay wali yoo xam ni seen leer noonu la ëppee leer ak jant bi moo tax mu ne yaqul mu ngi wax ibnul farid mm-hmm. fi taaya ci taaya xikaaya dina nettali an nafsi ci boom mm-hmm. defe naa ibnul farid mi moo demoon béy génn àdduna yàlla woon ko këram ci aljanam boko yàlla woné kërëm ci aljana muy joy muy ne li ma liggéeyal yàlla yëpp bu féké li ma yàlla fay man persona ñu ko lo bëgg mëna may ma rek ma xol jëm ji benn xolin waaw ci sam tout rek ñu gis ko moy muñ waaw non la gi àddina ñu xamna am na càkkuteefam wax ci taayee hikaayatan di nettali nafsi ci bom ne wamin mushril bahril muhiti ka nuqtatin wa min matl matlain nuril basiti kalamaatin mu ne sama leer gi كنقطة بوك من مشرع البحرين بوك تكل جيت جي اجي تالو المحيط باجي بيك كنقطة جيت جي فهم من لاب تقرأ شيء سمالة جوجو واتنو مقام جوجو نيم تالو جيت جي تالو جوجو غخانو مي بحر المحيط كم تقرأ لك مل ومن مطلع النور يجي فين كغلارجا البسيط جي لارج جي رجي كلام عتنا فهم من بين جنة كو بوك تكل لارج يا خم نيمو فين كشي جي رجي وابسيط مزوب سرق rek de leer suuf si ni mu tasaaroo ni mu leeree boo ko tëkkaleeg sama leer gi dafa mel ni benn géndeeku xasali huwa moom fi maxal yi mu ngi ci maqaamaam maqaamaam lay wax la leeram boo ko tëkkaleeg leer suuf si mu mel ni benn géndeeku maqaam bi ni mu tàllaloo boo ko tëkkaleeg géeju muxit yi mu mel ni géej gi mel ni benn toq rek كنا فكيف بي كلام موم يونت بي صلى الله عليه وسلم الذي ما قمنا لا قياس دي قياس عليه تي موم نكا لا يوخ سي يونت ممكن دوكو تكل كين فن الجنة نغال مراتب النور ها ما صبا ليرم ay al martabatu martaba suuf laa bu gën a suufee minaa ci aljana law axrajat buñ génn bu law axrajat bu génn woon xawraaw benn xuuru ay nii euh, usbaamuha baaraamam xataa min asamaay ba ci asamaan si laat faat koon mu fekkee nuura shamsi a ak jant balaa ani duniyaa si ñu àddina yëpp aljana ji gën a suufee mooy ji nga xam ni mooy njël benn aljana <coughs> su fekkoon ne benn xuuru ay nii dafa génne baaraamam rek ba ci asamaan si leeru jant fay ndax leeru raay ni boobu moo gën a leer fuuf leeru jant bi waxuma jëmmam de baaraam rek bu ko génnoon ci jant bi leeru jant bi fay ci waa àdduna waxaa kaza nii la mel al nisbatu saaniya askan ak ñaareel gi ilal jannati ci aljana alati bi nga xam moo gën a suufee min ci moom de waaw as ak ñaareel ji boo ko boo ko boo ko tëkkaleeg a suufee benn xuuru ay ne ci aljana am ñaareel boobu gën noonu baaraamam ci aljana ju <coughs> fa saidan topp la gën a ba nga jëm ci na nga xam ko ñeel aljana mu en na en lii na bu gën noonu baaraamam rek firdaw si fay firdaw si mu des aljana juróom ñaareel kon maanaam aljana ju nekk noonu la gën a leeree morom ka waxuma ma aljana ja de hmm. waaye benn wóoru ay ni ci aljana jooju rek hmm. bu génn woon baaraamam rek hmm. aljana jikk gën a suufee ñooñu eh, eh, jooju seen leer dana fay te ñëpp ci yonentu lañ leer kon kay la yonentu yàlla Muhammad moo gën a leer waaw <laughs> jant foofu elli kooku nag fala Cheikh Tidiane dëkk ak taalibeem ci damaanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal boole wa na asaraka aras law ba daa bu feeñoon nuuru leeram la kon mu nekk cham ci jant bi maa waa ànd ak moom waaw kal xindiili mel ni ab sondeel fi wasti cham ci digg jant bi aras bu leeram feeñoon nga tëkkal koog leeru jant bi dafay mel ne ab sondeel boo teg si digg jant bi xam nga ne sondeel boobu amul benn leer waaye noonu la jant bi mel ak aras fi wasati zahira dafay mel ni sondeel si digg njolloor gi njolloor mooy digg bëccëg waqad ruwiya nettal nañ fil xabari ci xibaar yi andoo na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muntu xalaqallaahu depuis ba yàlla bindee àla saharas kulli yawmin bis bu nekk yokk saa danañ ko xodd alfa xullatin takkaay junne takkaay mi nuuriñ ci leer dégg nga waaw aras nettal nañ ne ba ko yàlla bindee ba léegi bis mu nekk ñu xodd ko junne takkaay ci leer تمام لا يعد ولا يعد لجيجي في انواع الحجب شيقيتو كراي ولا بوك لا يعد دنك كونتي موي دارا في انواع الحجب شيقيتو كراي التي يقني فوقو مو نيك كوم كراي نيك سي عرس بوك تكري عرس عرس دارا وكل هذه الانواع تمبولم الى الليل تستمد دفاي من نوري تي لير صلى الله عليه وسلم تلاري يب ci yonent bi lañ jëlee leer kon kay bu la waxee ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën a leer yonent bi nga mën koo gëm woo moom yonent bi almufiidu mooy lu bubbal alaa jamiya ci mboolem yi yëpp bi anwaari ci ay leer wa iza udifat buñ ko laafee nag ilaa nuurihi cim ci leeram sallallahu alayhi leer gi nga xam ne yonentoo ko jox leer boo ko tëkkalee leeru yonent bi kaanat leer googu dafay nekk kalamaatin comme benn géndeeku falaan ci di yaay ci leer wa nuuri ci leer tey xam na ne du leer jant bi du dara ci kanamam lakin tasbih al ala waaye ni lu kawe bi la adnaa ci lu gën a suufee saa lu dagal leen dal arabi fa arab xaala woon subhanahu wa sallam wa taala kawana allahu yàlla nuuru samawaati leer gi leeral asamaani juróom-ñaar wala deg loolu firi yombut masalu nuuri misaalu leeram ka miskaatin comme ab waaw lamp boo xam ne fiyaa nekk na si waaw misbaaxun waaw ak ak mees dégg nga wala ka misbaatin comme ab bitel fiyaa nekk na ci misbaaxun ak lamp lim bëgg wax mooy yàlla niru na niru na ak leeru asamaan waaye xam nga ne yàlla moo gën a kawe leeru asamaan ak suuf fay na nuuruhu naka leeram subhanahu taala niru na leeram kon comme leeru lamp boobu moom yàlla masalu nuuri kamishkaatin comme leeru Euh, biteel boo xam ne dafa am lamp bu nekk ci biir waaw wala leer yeneen leeru yàlla la xam ngeen ne moo gën a kawe ak lamp feneen nuuru naka leeram subhaanahu tudd na ma seen wa taala kawe na laa xayata di tak doyaloo di ko ñeel wa shabahu mu niru ko bil miskaat yi waaw ci lamp weer maa ànd al miskaat ànd ak ne miskaat boobu fii xayati donc fii mu ngi ci doyab lottu waaye nag yàlla am na leneen lu ñu ci bëgg a jàngee fa li daal yi moo tax qul naa ñu wax ne inna tasbihu naka niru la yonente bi bi shams si jant cant bi min baabi dar bil masali mu bokk ci buntu joxe léeg bi la addinaa ci lu gën a suufe dégg nga ni ko yàlla defee rek ci alquran joxe misaal ci lu gën a suufe lu toll ni moom kon ci lu gën a suufe rek la mën a jox nit ñi misaal ci boppam waaye dan ba tey nazar nazar am na beneen setantal aaxaru beneen mooy la maa kaanat ba mu nekkee asamtu jant bi yee moom xaayatu ma adrakat mooy doyob la nga xam ne jot na ko al quwatul basariya kat nu mu def min anwaari ci leer yi waxee yaa yu dul yooyu dégg nga dégg nga waaw laa xam ma dina xam-xam lahaa di ko ñeel bii ci moom kaana nekk na tasbihu loolu ko sallallahu alayhi wa sallam bi xaayati ma adraka ci doyam naa xam ne jot na ko al bashariya min defi min anwaari ci leer waaye moom asamtu mooy jant bi mu ne ba nga xamee ne jant bi mboolem lu bët kàttan ak bët mën a gis ci leer ak lu dul leer jant baa ci gën a kawe mboolem leer yi nga xam ne xam nañ ko xamuñ ko laal gis nañ ne leer yi yëg yëpp ne leer la jant baa ci gën a kawe moo tax mu niru la yonent bi sallallahu alayhi leer bi nga xam ne moo gën a kawe ci leer yi te moo di jant waaye tekkuut ne waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa mel ni jant mm-hmm. déedéet moo gën a foor jant waqad madaxa tàgg na sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. moom bu séeru fii xasidati ci xasidaam wala boog waqad madaxa tàgg na sallallahu alayhi wasallam yonent bi tàgg na ko mm-hmm. ku ko tàgg ci xasidaam kaax bu bun zohayru xaysu shabaho ba mu ko nirolee sallallahu alayhi wa sallam bil asadi ci gaynde fi haybati ci wegal wa shijaati ak jàmbaar woowu te moom maalumu luñ xam la xasida boobu ñëw xam nañ xam nañ ko mooy kaabu bu muy jégal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tagg nirole ko gaynde ci jàmbaar ak wegeel waaye xam nga ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a jàmbaar gaynde fuuf moo ko gën a wegu nit daan na ko gis rek di lox mu di ko xoyofal na ko góor la go xamni rek ak jigen ju doon lekk seel ci jàpp fi ci mak mo mu jur pour won nako nit la comme rek mm-hmm. waaw ndax wegal gi mam sallallahu alayhi wasallam, hay ay mm-hmm. mm-hmm. si yaqulu kaabu nan naan ataawu daatu ba tegee mi ni sama jor fi ke fi gamati ci tenk borom bu gali xiil wa waxam ja al xiilu mu wax ñu wara japp ñew na naa ba teg sama loxo ci tenk ki nga xamni ne nii mbugal ci loxom la ko yalla def ta lu wax rek moy wax ja loolu la ñu war a topp kon kay laa naazion du ma xëccoon te wante moom du ma xëccoo ak moom mu ne kon kay yonent boobu du ma xëccoo moom ku yàlla mbugal yonent waa tax mu mbugal la yàlla moom ci boppam loolu lépp ñëppoon nañ koo seetlu mbugalul kenn ngir boppam rek rek rek waaye joxut kenn xewal ngir boppam rek ndax foofu keneen yeggut fa waaye ci martaba ba mbindeef xamee ci la commencé mbugal ci la commencé waaw xéwalee foofu la mbugal ak xéwal xam sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla mbugal rek da ngaa weddi yonent bi wala nga ba jàngaleem rek tax mu mbugal la waaye soo weddiwul yonent bi teggiwoo jàngaleem yàlla du la mbugal waaye ku yàlla xéwal rek danga nga topp yonent bi gëm ko waaw wala nga topp njàngaleem moo tax si màtt boobu la mbugal la ko yàlla di joxe waaye moom yàlla ca yàlla am ja kenn moom xéwalul kenn loolu eggut fa moo tax ku yeboo weg mbindeef yi mm-hmm. ñu xal ku ñëpp mbindeef yaa leen xalak foofu la alkaane am mm-hmm. waaye ñu tedd ñëpp mm-hmm. mbindeef yaa leen teral ñu bëri nag seetluñ loolu <laughs> léeg-léeg nga dégg ñu ne diw diw rek la du tus kon nag jaamu leen yàlla bu leen jaamu diw yàlla rek lañu war a jaamu waaye war nañoo fekk képp koo xam ne nii mbindeef ab yàlla la soppe yàlla yàlla takk na xare ngir noonu benn waliyu mu takk ci xare loo ci déggé hmm. ku ko soppal am ben waliyu ñu hmm. tak la xarit rek jaa yaa wax dé hmm. xarit xarit ak xarit nak du ben xare mom musiba ci jiddo waye xarit moom wala ko ci jiddo ci mbindeef fi xép ci la yalla di ciawé ci la yalla di joxé ku ne boo wek rek li nga xamé né bo wegee yonentu yépp wéddi ben yonentu yaq nga naka noonu ku fonku li yépp wéddi ben waliyu rek am nga yalla problème xamoo nag ñenn ñu wëlli yàlla yi mm-hmm. xamoo ñu yàlla tànn kon fonkal ñëpp rek mm-hmm. mën a mucc xormaal leen <coughs> borom sax du def lu lu loolu mm-hmm. la zaaka yonentu boobu ah yebu moo gën a yegoo indi fa man is yukallim mu ni jamono bu may wax man dégg nga waxee la ñu ne may nekk naka yow kaabu moom suubun kuñ askanee nga lu ñaaw lii masulun te ku ñuy laaj nga lu tax nga wax lii yonentu moo gën a wegu maanaam moo gën a raglu min xaadin ci gaynde min li yusil usdi si jàmbaari gaynde yi maskunu dëkk waayam fi badni ansara mooy xuuru ansara mm. xiilun gott la xam ne doona woo xees na ko xiilun beneen gol gott wala gol mm-hmm. mooy barab bu sëq bu ami garab gaynde foofu la la dëkk mm-hmm. nee na yonent bi keroog ba muy wax ak man mm-hmm. moom laa gën a ragal mm-hmm. ci gaynde gaynde goo xam ni gaynde gu jàmbaar la dëkk ci xuuru ansara nga xam ne ni eh, xuur boobu boo xam mooy lan mooy garab yu sëq la te lëndëm waaye nga fay yegg da nga romb barab bu mel noonu xam nga ne kon foofu dana lëndëm lool diggante <clears throat> ñaari barab yi rek dafay raglu waxuma laa nga dem ci barab ba gën a sori nag gën a lëndëm ne ne yonentu moom laa gën a ragal ci jàkkaarloo gaynde googu lu tax ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu la rayee sawara nga jëm waaye gaynde moom bu la rayee mm-hmm. dara dee nga rek yàlla mën na laa dugal aljana ti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu la meree mm-hmm. yàlla mere na la waaye gaynde moom bu la meree tous mm-hmm. mën naa am yàlla gën a bëgg moo tax ragal yonent bi borom xel moom la war a gën a def ci ragal mooy coobare yàlla ji nga xam ne ci la yàlla defee lu bëri mm. su ma tamaada mu continué fi wasfi asali ci melal gaynde gi moom mm. waaw kambu mm. ne waxuma leen gaynde rek de xam nga gaynde rek jar naa ragal waaye gaynde gu ñàng laa leen wax ne leen moom moom laa gën a ñeme ci yonent bi wala isal du dañ bi waa di ci xuram xaatiqatin borom confiance maanaam ku wóolu boppam du mos di dañ mukk mu taraxal basi di kuñ sànni waaw ngandaayam wa dirtaani ak yéréem maa ko wóolun di lekk nit ko am confiance wóolu boppam saa yu jàkkaarloo génne googu dana sànni ngandaay suuf si ñu si mi lekk ko génne googu nag dem jàkkaarloo moo gënal fuuf jàkkaarloo yonent ci sallallahu alayhi wa sallam wax na dëgg tëgalu dana yenu minhu ngir gaynde googu si baaxul jaw yi ndog mentug jaw yi maanaam picc yi naaw si jaw ji xam yi sell dañu yenu daa mi satan di wéy ngëbu ñu tekk buñ gisee gaynde gi rek dañ naan tekk duñ sab duñ def dara ndax ragal gaynde gi lekk te ñoom kat ñu ngi ca kaw wala tamasha du dox mukk bi waa di ci xurma la jilu tànk yi gaynde gaynde la goo xam ne tànk ñu mutu dox ci xurmam nekk gaynde googu maanaam jàkkaarloog moom moom a gënal foofu جاك الله ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> su ma tamaada mu continué nag fi wasfil asali ci melal gaynde mm. allazi gi nga xam ne kaana nekk na indoo fu moom sallallahu alayhi wa sallam mm. ay yonente boobu mm. ay yobu di gën a wegu minu ci gaynde googu mu continué nag ci xasida ba di melal ne yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam moom la gën a ragal ci gaynde googu illa an kaala ba mu wax ne inna rasula naka yonente bi la sayfun jaatale joo xam ne yustadaaw dinañ leerlu bi ci moom muhammadun jaas ju ñu daal la maslulun jaas ju ñu rocc la min suyufillahi bokk si jaas yi nga xam ne yàllaa ko moom bu seet la yonent bi jaase la ju ñuy leerlu soo bëggee baax daal mu leer la la nga xam yoonu jub waaye daal bu la yàlla ne nattu jaas la yàlla caw jaas ji yàlla cawaatee di leer la nit ñi mooy ju ñu daal mooy jaas ju baax bu mel ni hind la jugee waaye nag du jaase sàmba du jaase demba jaase yàlla la du jaas ju nekk ci mbatit jaas ju ñu rocc la mhm. pare na nag liggéey duñ ko mos a dugalaat ci mbat ma ba bis penc jaas ak yonent yaa ngi liggéey sallallahu alayhi wa sallam mhm. gannaaw yonent liggéey ci ay mhm. <coughs> bëgg baax rek jaas ji leer la ku bëgg a bon rek jaas sa dox gi benn yoon naa wax nañ ne inna naka moom yonent bi sa alayhi wa sallam sabahu inna wa naka kaabu sabahu niru na niru na yonent bi bilaas de ci génnee maa kaw ni ànd ak nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa nisbata di rek askan baynoo di nekk diggante mu bañ asad rek diggante gaynde laa fi sijaati du ci jàmbaar wala fi laxibat du ci wegel hmm. yonentu moo gën a jàmbaar gaynde moo gën a wek hmm. wegel hmm. ndax raglu gi gaynde am yonentu ko jox waaye jàmbaar gi gaynde am ci yonentu la ko jëlee illaa ida qul naa lu mooy ñu wax rek a tasbihu niru le lil ala ñeel ku gën a kawe bil adnaa ci ku gën a suufe saa yi xundu dagal na en doom fa gën a kawe ci lu gën a suufe dagal na ci arab yi noonu lañ def fii kenn mënu ko niru le ku toll ni moom moo tax toujours rek lu ko gën a suufee nga koy niru rek sallallahu alayhi wa sallam hmm. xawloo waxam min ka tukkee si yow hmm. mu diwun bi aji leeral hmm. yuridu dafa namu annoo ne moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekk na wajhu karamam fii gaayati diyaa yi ci doyob leer yonentu karamam dafa leeroon leer gu jéggi dayoo hatta hakkat ba mu ne te Aïchatu Aïcha radiyallahu anha yal na ko yàlla gërëm annaa ne moom Aïcha at gis na al ibrata pousa fi leyli ci guddi gi hina saqatal jamono ba mu rotee mi diyaa ci loxoom bi nuuri waji ci leeru kanamam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne Aïchatu pousa réer na ko ci néegam mu lëndëm mënu koo gis waaye yonentu dafa dugg rekk kanam nga leeral puso ba yaa ngi lu mës na mu nuuraaniyatu leeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam jum ne usfirat wuñu nañ anu ci moom laylatun guddi xarraa u du aji leer <clears throat> maanaaw maanaa bu mooy am na isfaar naka wuñu googu waaw moom si datu diyaayu mooy doy mooy tas ak leer gi jugee alwaatoo gi aji tabbi mm-hmm. baax na salaam gannaaw lëndëm mm-hmm. histoire mooy lan mm-hmm. mooy leer gu leer naññi ñëw gannaaw lëndëm loolee wuñ ñi moom lañ tuddee ba set sax yaqul day wax subhaanahu na ma sellam wa taala kawe na maa ngi gën ci guddi gi sax bara dem dëddu na wa subhi maa ngi gën suba gi sax asfara nem leeral na wu isfaaru qul naa wax nañu moom si di yaay mooy leer gu tat banda zami gannaaw lëndëm waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it waaw mooy leer gi nga xam ni nii lu lëndëm rek moo koy leeral waaw xaala wax na waju kana moom sallallahu alayhi wa sallam kaanoo dafa mel ni moo samsu jant la fi diyaay ci leeram su maar dafa topp mu tofal ala yi ci moom moom maanaam aqaram beneen maanaa xaala mu ne wu wuññi na ñaanu ci kanam googu leeratun guddi xarra bi aji leer leer na si an ndax mbir mu leer zuhuru feeñ gim feeñ gim feeñ fii xaayati zalaami su dee ak lëndëm woo te moom allayli mooy guddi ak mu ak mooy gën a màgg jamaanan ci taar min hmm. zuhur yi ci feeñ gim feeñ fi nahaari ci bëccëg hmm. lu leer hmm. bu feeñee guddi ci rafet ci bu feeñee bëccëg ndax bëccëg dafa leer ni moom mbir safaanam moo koy wane moo tax yàlla defar lu mel ni safaanam li daal looloo tax xaala woon usfira bu ñu ne ñu ci moom laylatun guddi xaraaw waa ji weex yaa ngi mos na mu bay daaw bi aji weex bi si nuuri si tatak leer wakkaane nekkoon alleylatu guddi gi mm-hmm. fi asliha ci cosaanam a xaayati zalami ci dee ak lëndëm a tanaa ba mu fenkee alwaju ak këram këram gu tedd ga ci moom mm-hmm. mooy këram yonent bi bi deeyaay ci leeram mm-hmm. waaw guddi gi <laughs> dafa lëndëmoon waaye ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam feeñee ak leeram kaana nekk na xaraaw di aji weex bi daal kër waji ci boobule këram boo sura wu wuñ ñaan daal kër waji ci boobule këram ala këram gu tedd bi ñu wuñ ñu guddi googu xataa saarat ba mu mujj bay daa di aji weex bi xóotu alladi gi nga xam ne baras da feeñ ne feyaa ci moom su ma xaal toog mu warade laanu ban guddi la kanamu yonent bi leeral mu ne laylatul mawlidi mooy gudd ak juddu alladi gi nga xam ne kaana nekk na li diini ñeel diine surur ak mbégte bi yow mii ci bisam was di aaw naka juddu guddi googu mooy guddi leer guddi googu moo di guddi mbégte ak kontante sallallahu alayhi wa sallam ci la kanamam ngi leeralee guddi googu keroog ba yonent bi juddoo guddi yëpp gox yëpp leer nañ rek laa wax de bi di wàcc ba ba mel ni boo yëkkatee sa loxo xaw koo laal mm-hmm. foo toll rek waaw di gis leer yi waaw Makka sax ñuy gis pare nekk Sham mm-hmm. ndax leer gi mu leer kanam kon kanamu yonentu googu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla wan na la leer la goo xam ne waaw dañ na àddina yëpp rek laa wax de xawloo woo xam ne laylatul mawlidi guddig juddu yoxtamalu danañ yaxtamilu dana jëmtalu andoo ne moom min baabi atfu bayaan muy bokk si buntam atfu bayaan atfu bayaan mooy lay leeral la ko jiit rek mm-hmm. loolu ñooñu nax woo ko xam mm-hmm. waa dafa waxoon guddi gu leer mm-hmm. ba pare muy leeral nag ban guddi la mooy leelatul mawlidi mooy guddig juddi mooy guddi gu leer gi yonent bi wuññi o oh, moom xawloo mooy wax mooy waxam jim ne usturat wuññi nañ anum ci kanam googu leelatul guddi raaw bi aji weex atafa tafanaa laa ci moom bi xawli ci waxam mu ne ko guddi googu mooy ban mu ne leelatul mawlidi mooy guddig mu yaxtamilu dana jëmtalu an naa ne mm. leelatul mawlidi gi jumlatun jumla la istinaafiya buñ sos waa loolu it ñooñ naxoo xam maanaam dafa sos waxu boppam rek ne <laughs> guddi waaw juddu gi yonent bi juddu guddi googu mm. waaw guddi googu guddi mbégte la ak de su ma xaala mu wax laylatul mawlidi guddig juddu mhm. kaanoo dafa mel ni moom yàqul wax li yekkul na nekk ihtimaamu ko sa yitte waxel mu ko ak sa xam-xam mhm. ci laylatul mawlidi guddig gi yonent bi juddu mhm. allati gi nga xam ne wulide jur nañ ko fiyaa ci moom sa alayhi wa sallam bi tilka layla ci boobee gudd guddi kaan la nekk li dinu islaam yi ñeel diine lislaam bi tilka laylati ci boobale guddi waaw sururun ak mbégte wa diyaaw ak kontaan wa zahu kontaan nag woo moom siddatul inbisaati mooy tatak tàllalu fi sururi ci mbégte rek laa wax de waaw fay na surura nag mbégte woo na ci dëgg-dëgg woo moom nuurun leer la yestahu dana jolli di fenk fenkaalal xal bi ci xol waaw yujiru yujiru dana amale xal bi ñeel xol a surura mbégte wal fara ak bég wa isdihaar ak kontaante woo moom kontaante nag waaw zuhuru daalik zalika mooy feeñ ak loolu alal jawaar yi ci cër mooy mbégte gi feeñ ci cër bi satrin nga commencé kebetu di waxantu aw tasfiqin wala tàccu aw shiddati harakatin wala yëngatu gu tat loolu mooy isdihaaw rek isdihaaw rek laa kon bu seeru ne na nga jéem a yittewoo guddi gi yonent bi juddu guddi googu nga xam ne ba ci yonent bi juddoo waaw diine mbégte ak kontaan rek laa waxale wa tawaalat toftaloona busral hawaati fi mbégte yi mm-hmm. xaacu ya am na li mbir te mbir wa xaqa yéena la naaw keroog ba yonent juddoo mm-hmm. ñu ngi xaacu di bégle mm-hmm. ne yonent bi judd kon xëy nag ñu ndokkeel ko <coughs> sallallahu alayhi jinne yi di xaacu di bëgg la juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa këram yi ñu ngay damm suñu laajee ñu ngay wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo judd xam ngeen ne kooku du nit simple xam nañ ko ba ci mbëtt yi ñu ñu réer ci jinne yi ñoo ko xamut ak nit ñi. maanaam maanaam ba àndoon li am ba am tawaala toftaloona albashaayu mbégte yi alal naas ci nit ñi fii tilka leele ci boobule guddi bashar bégal na wilaadati ci juddu yonent bi keroog guddi googu guddi gaa ngi bégal nit ñi ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu na jaal yi nekkee penku ña ngay dem xarfu ngir bégal waa xarfu ya nekkee xarfu ña ngay penku ngir bégal waa penku ñëpp a wa nuqilat tooxal nañ min ka ci bégle yooyu kasirun lu bëri nettal nañ ci lu bëree bëri loo xam ne xajul ci waxtu yi rek laa wax de wa xikaayatu mulki furs malikul furs nett rek buur muy faaris maalumatul luñ xam la moom buuru faaris keroog ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo xew-xew bu ci moom leen iwaan woon ndax tabaxam ba mm-hmm. inaa dama màbb na minu ci moom arbaata asrata surfatan fukki waaw toj toj ak ñeent fala maas baabam xëyee mm-hmm. waraa mu gis mu gis toj toj yooyu takamara jàq na fi xal bi ci xolam mm-hmm. dartu bi ci topp danañ wax tabax boobu nu mu dëgëree woon ak nu nga xam ne caaxaan du ko toj waaye dafa xeew rek gis ne tabax ba toj toj na fukki toj toj ak ñeent mu jàq ci xolam bi kama din ci njàqare azimin daaji màgg waaye wakkate moomu nëbbu njàqare ji nag waxut ko kenn mm-hmm. maa ana iwaanoo ànd ne tabaxam boobu mm-hmm. kaana nekkoon na fi xaayati tadafuqi tadaquqi mm-hmm. ci doyab ak dëgër rek la ci na moom <coughs> maanaam dañ ko xereñoon xereñe gu dëgër falma asbaabam xëyee wajala sa mu toog bi ma ci ci jotaayam wajala sa mu toog ak diwaanu mbooloom ma maa wànd ak moom fa jaa mu dikk albariru ndaw la mooy ndaw lañ yónni woon min asaabi naari him si ñooñ safara sa rosement bu màgg ba alati bi nga xam ne yaa bu dunaa dañ ko jaamu min dunilaayi ci lul yàlla baasoo yónni nañ la woo ñeel ndaw loolu yuxbiroon ñi di ko xibaar benn naara na safara utiyaat fay nañ ko bi xëy sababin waaw ci lul benn sabab rek laa wax de wala mu yàq furuut sàgganu ñu naa ci xamu ko mm-hmm. wala na xasa wàññeeku wut mm-hmm. xata bu aa mat ma mm-hmm. Kisra dafa xëy toog ak mbooloom di leen nag toj tëj yi nga xam ne tabax bi toj na ko fekk ñoom Faris amoon nañ safara su rëy suñ doon jaamu darsu bi ñëw dana laalaat safara soosu ah safara si am ay xamukat yu doy. bu ko defee ñun toogee rek ci la ndaw ñëw nekk ko ñooñ safara si ñoo ko yónni ne na wax kis Kisra ne ko safara si fay na te kenn sàgganut ci matt mi euh, wàññeeku waaye daal kenn mënu koo taal dafa xëy rek fay ne ko yonentoo juddu sallallahu alayhi wa falma wax bi rek bañ ko xibaaree bi zaalika ci loolu zaara doolee ku nekk ma doon njàqalem maa maa wu ànd ak la moom fii ma ngi ca min xamil iwaani si njàqaleb tabax ba bañ ko waxee loolu rek njàqale yokku ànd ak bi toj waaw loolu jàqaloo na ko mu ko lii mu gën a tiit fa qaala mu daal di wax moom kisra li ahli majlis yi ñeel ñoom jotaayam mu wax ñoom jotaay bi ne leen maa haza lii mooy fa qaala mu wax loolu ñeen ko al mu bisaanu attekat ba mubisaan woowu moom alqaadi mooy àttekat bi luxatim seen làng mubisaan mooy àttekat bu mag bi seen làng xaala hmm. wax na moom àttekat bi la ñeel ko hmm. ne ko waanaa man asla yàlla defaral laaw yàlla mun ko sa nguur ga mm-hmm. raaytu gis naa fi asin laylati ci bile guddi ruyan ab gént ma it mm-hmm. raaytu gis naa ibalan ay gëlëm mm-hmm. siyaaban yu mokkut yoo xam ni kenn mun leen a omat taxuudu mag leen a omat xëylan ay fasin raaban yu en raab ah xat-xataan dagg nañ daj la ta dexu daj la wan tasara ñu fi bidaa daa ci réewi daj la moom bi ne ko ma gis naa gëlëm yu mokkut ay fas yéene laa leen omat dugg daj la mm-hmm. tasaaroo ceewi mm-hmm. ah Kisra tiitati fa qaala lahu mu daal di ko wax Kisra Kisra ne ko maa mm-hmm. nekk fa yow fii taawila ci firi gént googu yaa mu bisaan yow àttekat bi loo ci xam qaala mu ne ko araawa gis naa loolu xadasan muy xew-xew yaa tiina danañu dikkee min naa yeetal arab yi jógee ci côté arab yi rek rek yaakaar naa ne ñun ñooy dem ci arab yi rek waaw jëlee fab xew-xew andi ko mm-hmm. loolu la wax de mm-hmm. parce que dafa gis gëlëm yu mokkut mm-hmm. gëlëm yooyu ñu ngi xam mat ay fasien raab dégg nga fasien raab yi mooy xibaar yu jógee ci arab yi ñoom ñooy gëlëm yu mokkut yu tëy yi ñoom ñooy jël xibaar yooyu tasaare ko ci réew rek de te mooy dikk ak yonent bi wala dafa ne raayatu gis naa ay baleen gëlëm ci aban yu mokkut te xuudu ñu ngay xommat ñoom gëlëm yooyu xeelen fas iraaban yu iraab bañ ko laajee luy xew-xew ba mu ne man gis naa ne xew-xew la boo xam ne dana ñu dikkal bu jugee ci ko eh, goxi arab rek de ah Kisra gën a jàqat fa baynamaa huwa ba nga xam ne moom kazaalika comme noonu la istisaasa rek war a doroon naa ci moom albaridu ndaw la mm-hmm. maanaam mooy kañ yónni benn ma boo xayra ne ko ndoxam boo xayratu saawa mm-hmm. kada xaada ngis na mm-hmm. boo xayratu saawa seen ndox ma ngis na fi tey fi tilka lee ci boobu guddi bilaa sababin ci lu benn sabab ah mu gën a jàqati suma ma war topp mu daana ale ci moom albaridu ndaw la benn waa di samaawa ne ko xuuru samaawa faada bëbb na ndox faydan bëbb aziman bu màgg te daawut ko def xur ndox maa ngi bëbb di dugg ci nit ñi boxeerutu saawa gis gim ñiis waaw dégg nga te seeni barab la woon ñoom waa di samaawa daal di bëbb ndox moom loolu wane na ne seen seen teraanga yëpp ak seen xërëm yi dana dana fay waaye leer ak yonentu yàlla salaasam dana bëbb foofu yëpp vraiment waqaam ba mu tàbbee fi aw aadal am li ci mbir moom Kisra mënatul nëbbu nag baasa ci la yónnee la Abdul Masih bun Buqayla xaaf gi ñaari tomb la Abdul Abdul Masih bun Buqayla moom la yónnee wakaana nekkoon na bil xiira ma nga woon ca xiira baasa yónnee na lay jëm ci moom Kisra Kisra lii at yow mu dikkal ko li yuxbira li mu xibaar ko fi am lii ci mbiram la ko dikkal mooy ne ci Abdul Masih fekk ci xiira ca côté Cham ne ko na ma dikkal. daal di ma wax li xew vraiment jëla sa moom toogee moom Abdul Masih benn yi day ci kanam Kisra xaala loolu ci la wax Kisra ne ko maa turidi loo bëgg xaala mu wax la ñeel ko fii naf si nekk na sama bopp amru mbir azimun bu màgg xaala lahu Kisra na ko innama uridu naka bëgg naa mel naa si nit ñi man yuxbiru ne ku may xibaar bi am di ci mbir allazi bi nga xam ne fii naf si mu ngi sama bopp min min xayri an aalamu ci min xayri an uallimu ci loolu ma koy xamal bi zalika ci loolu Kisra ne ko li nekk fi man bëgguma koo xam ne ni maa koy wax muy firil déedéet damaa koo xam ne moo may nettali ne ma lii ak ba pare firil ma ko su ma yox bi du mu xibaar ma masa yuraadu la leen na mu minu ci loolu mm-hmm. foo naa ko jamono jooju asiqu laay gën laay mën a hóoru bi mm-hmm. xabar yi ci xibaaram bi mu wax Kisra nee na ki mu koo xam ne moo koy nettali mbir mi ba pare mm-hmm. wax ko li ci yàlla na mu su boobaa lay door a gëm xaala Abdul Masih wax la woo ko ne laa yekkoon du nekk elmu haada xam xaalin lu mooy ci am nijaay lii ñeel ma yaskunu ma nga dëkk bi sharqi saami si ñaari penku saam am na sama nijaay boo xam ne ma nga ci penkub saam saam fa la mm-hmm. kooku daal mën naa xam sa mbir mi <coughs> xaala mu wax la woo ko Kisra Kisra ne ko fasab demal yi jëm ci moom wasalu laaj ko mm-hmm. amma dégg nga mm-hmm. <coughs> ci nga xam ne fii ci moom <coughs> wala wa amma baasaka ci la Kisra yónni fii ci moom ma za yuraat ak lan lañ bëgg minu ci moom. Kisra na ko demal sa nijaay boobu nga laaj ko. Mm-hmm. mu xibaar la mbir mi ba wax la ci yàlla bëgg. Mm-hmm. fa qaama mu jug moo abdul masih min saati ci waxtu wa musaafara mu tukki lay jëm ci kisra wa kaa lay jëm ci waaw satix mooy boobu satix la tudd wa kaa nekk na bi sharqi saam ci penkab saam falamaa wasala ba mu yeggee lay jëm ci moom wajadoo fekk na ko bi axiri zamanin ci mujj ak jamono mi moom lii ci dundam fekk na sukuraat di waaji dee ah fa loo ñu ko julo saaw way toogaale mi ne kalam naa wax nañu ak moom fa la muy te kalam waxut laa noo moom fii xamaraatil mawti mm-hmm. mu ngi ci sukuraatu dee mu ngi ci lëggëm dee ma ngay mm-hmm. moo tax wax nañu ak moom tontut Abdul Masih fan sole mu daal di sadd ay bayt mm-hmm. Abdul Masih Abdul Masih andoo fa moom Abdul Masih daal di way nag naa sumun am yasmaw xitriful yaman am baara qad lam bi shawal anan asumun ndax dafa tëx am yasmoo wala mu ngi dégg retriful yaman sangab yaman am baada wala deena xat la ma wàcc na bii ci moom cheikh wala ana ni lefam dee ndax dafa xalku lefam dee wàcc ci moom wala boog dafa tëx wala mu ngi dégg maanaam ndax waa ji di sa teex dafa tëxam mu ngi déggam wala dafa dee yaa karimal xattati ayat man wa man ataaka cheikhul xayi min aali chanan yaa karimal xattati yow mi nga xam ne yaay ki tedd ci masala mi nga xam ne ayat lot loona man ka nga xam ne wa man ak ka nga xam ne maanaam yow mi nga xam ne masala mi lot loo ñëpp yaa ko mën a leeral loolu mooy yaay ki tedd ci masala moom de ataaka dikkal na la cheikhul xayi sëriñu ab gàdd min ali sanan bu jugee ci ñooñ sanan waaw moo yaayam min ahli zibi bun xajan mi bokk ci ñooñ tiibu bun xajan rasul xayril ajami yasri lil wasan ndawal rasul xayril ajami ndawal buurab ajam la mooy kisra kisra yasri ma ngay rañaan lil wasani waaw ngir ajom <laughs> laa yarhabu ragalut alwaxda tëkku wala rayba zamani du caagen jéng ak مور كو سولو بنك واي وانا كو كو يني اك موي كان اغلو كو تخا نيو ان سدا سد نبيتي اند راسي فف بوب سطيح با ففتعمو بسطيح سطيعين ناي بتمي ثم قال من عبد المسيح اتى الى سطيح على جمل مشيح وقد اوفى على الدريح mu ne abdul masih ataa dikk na ilaa satiixin jëm ci satiix alaa jamalin ci gëlëm mushin bi aji góorgóorlu gu mën a daw waxat aw faata fekk sapp na moom satiix ala dari ci dee mu ngi waaji dugg bàmmeelam ba saka yónni na la yow abdul masih maliku bani saasaan bu rëbb doomu saasaan li xamuudi niiraani ngir fay ak safara sa waru yel mubisaani ak gént mubisan ba muy àttekat ba ah abdul masih koy wax nag gént ak li xew ak ki ko yónni te kenn waxut kooku nag raa gis na iwalan ay gëlëm ci aban yu mokkut taqudu ñu ngay omat xayran ay fasin raban yu raab kat kat dagg na moom gëlëm googu daj la te dexu daj la wan tasaral mu tasaaroo fi bilaadi yaa ci réewam abdul masih mu ne yow abdul masih ida kasurat bu bëree tilaawatu jàng ma zahara mu feeñ mm. saahibu la hilaawati borom xet wa mm. mooy borom dokk ba te mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam da daan yorob dokk fu mu mm. wa faada mu bëbb mm-hmm. waa di sama wa wa waxaada mu niis mm-hmm. waa di saawa quuru boxiratu saawa su loolu lépp xamee falay sa nekkul a shaamu shaam li sa téye ñeel sa téye shaaman di shaam yem li ku maanaam bu loolu amee mm-hmm. yonentu boobu feeñ xamal sa téye moomu tudd dara ci shaam lépp yonentu boobu ko moom yam ñu ko dana falu mm-hmm. munu ci faris mm-hmm. mulukun ay buur yu góor wa mm-hmm. malikaatun ak ay buur yu jigéen ala adadi shurafaati ci liimu toj tojooyu maanaam dinañ fukki buur ak ñeent suñ jeexee nag xamal ne loolu nguur googu nguurub lislaam la ñoom jeexal nañ ci wa kullu maa huwa atina atin mu ne wa kullu maa huwa lépp ji dikk la atina de luy ñëw daal dana ñëw kenn mënu ci dara li war mhm. mooy nangu ndogal mhm. te jéem a dem bokk ci xéwal gu mag googu mhm. su ma faaree topp mu boobu ruuxum ba mu waxee loolu rek moom Abdul Masih eh, moom Satih ba mu waxee wax yooyu ci la ruux gi daal génn mu dee. فلما جاء ديك عبد المسيح عبد المسيح الى كسرى جمت كسرى واخبروه من خباركم بما قالوا تي لا ستي ونستي ستي نعم. فصدقوه مدغل نعم. وقال من هذا لي هو الذي مو ليغا في نفسي مو نيك سما لدال مملا مملا موم لا آه، ياكارون نعم. ثم خفف مدالي دال لي من جاقر الى نفسي سي بوهم لا wax nako fukki buur ak ñent جاقر جوانيكو loolu من jàqare ji wàññeeku waxaala mu ne zaata arbaatu ashara malikan fukki ak ñeent xasaaral mujj na nag umuran di ay mbir ak qadri al azim balleen baay barahama jërëjëfe baay war nañu